aousubillahi min asheytaani irajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala rasulillahi seydina muhammadin wa ala alihi wa asxaabihi wa man wala rabbi sharax li sadri wa yassir li amri xulul uqdatan min lisaani yafqahu qawli yaa himmata cheikh wahduri lana bi haazal mahdari wal taati fii bi nadaratin taati lana bi zafari wala xawla wala quwata illa billahi ilayhi nazim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jamiatu Nasruddin maa ngi leen di nuyu di leen ziara di ziara képp kenn si yéen di jiital si nuyoo bi président Keba Sylla ak mbooloo ñu koy jàppale. di nuyu modérateur Cheikh Tidiane Ndiaye ak mbooloo ñu leen di jàppale ñëpp ak képp koo xamante ne rek sant na ñas. ñoom sax lañuy jiital ci nuyoo bi ñu egg siwaat ci jabarul kasri bunt fan yi de passé defoon nañ baabu xaswati uxudin uxud mooy xare uxud waxoon naa leen xare uxud nan la demee woon ak lan moo sabab xare uxud ak xare bi ci biir xare bi nu nu mu tëddee woon nag ba ñu jàmmaarloog ak jullit ñi jullit ñi ni ñu tàmbale woon bay dem bay gañee ak nan leen gañee ba ñu wàccee ndigal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak li ci xew ak seelu yonent bi ñu demoon ak yëpp ni ko bàyyi wooyee indi woon nañ ko bu ko defee nag ci wàccaayu xare xandax suñu ñëwee ci xare xandax dinaa leen wax lan moo tax xare xandax war a am waaye ba ñu nekkee ci wàccaay bi dafa amaat benn xare bu ndaw bu am ci diggante bi waaw mooy Muray Sia xare Muray xare Muray Sia moom la ñuy wooyee xazwatul Muray Sia ba léegi moom mooy wax moom la ñuy wax xazwatul bani mustalix bani mustalix nag yàgg ngeen ko dégg ci siira yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñoon benn giir la wala bokk nga ne benn tribu la boo xamante ne ñu ngi bokk ci banu xusaata mooy ci banu xusaata ñoom ñu ngi dëkkoon fu ñuy wax Ousfane Ousfane ak fu ñuy wax Raxa Farwa ci région bi ñuy wax Xudayd ci yoonu Màkka jëm Medina ci wetu place ville bu am solo dëkk bu am solo bu ñuy wax Rabeex nga xam ne dëkk la boo xamante ne buntu la woon. bu mag boo xamante ne nekkoon na diggante Màkka ak Medina wala ba ba tey sax mu ngi foofu léegi nag Banu Xusaata nag ñoom soo xoolee am noonu nan ay relation yu rafet ak l'islam ak yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam waaye seen di giir bu ñuy wax Banu Mustaliq ñoom nag ñoom Banu Mustaliq ñoom waa Quraysh lañ doon gën a jàppale donte sax kek seen clan di banu xusaa nangu woon nañu bëggoon nañ yonent bi sallallahu alayhi wasallam amoon nañ ay relation yu rafet ak moom ñoom dañoo beddee ko woon rek ci seen biir nekk giir goo xam daal dafa mel ni dañoo bañoon yonent bi ak li mu woote ak lislaam di allié wu ak waa Quraysh léegi nag waxtu bi nga xamante ne Quraysh yi waa banu Quraysh mobiliser nañ seen seen armée yeeg ak seen ñi leen di jàppale seen allié yi ñi nga xamante ne ñoo leen di jàppale parce que Quraysh xeexuñu woon xeex bi ñoon dog waaye arabe bi tribu yi waroon arabe bi yëpp daanaka ñu ci bëri danoo demoon si ñoom pour ñu jàppale leen ñu xeex yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak l'islam léegi nag waxtu bi nga xamante ne ñoom dem nañ pour Quraysh war a daanaka préparer dajale seen ay xarit seen alliés yi pour préparer xeexu xandax chefu ki nga xamante ni moo jiine jiite banu mustalix muy xaaris bun diraar daal di gis ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam stratégie am ñaareel dañuy wax naan suy xeex ak sa noon doo ko xeexee wala boog doo xeexee ak moom ci biir dëkk bi ndax mën na laa mën wala mu gaañ fay jigéen wala rey fay xale mën na la mën daal moo tax toujours su yëgaan ne gars yi takk nañ xare rek moom dal day daal di dem jiitu kon yonent bi mën nañu wax ne sallallahu alayhi wasallam stratégie de défense la doon utiliser daanul woon xare daanu woon xare di dem di dal ci kaw nit ñi waaye ku mu yëg ne takk nga pour ñëw dal ci kawam mu ñëw génn ci biti dëkk bi mën nga ngir mën laa gàttanu nga xam ne doo gaañ kenn ci biir. loolu moo waraloon yonent bi sallallahu alayhi wasallam yónni ku ñu wax Burayd bun Xusayb al aslami al aslami kooku nga xamante ne moom moo dem xool yi ji. ndax loolu am na waaye ba ñu demee gis ne na ndekete loolu am na am na sax ci beneen version boo xamante ne dañu ne yonent bi moom moo dem daje kenn ci seen espion yi laaj ko ñoom ndax li ñuy wax ne gars yi dañoo bëgg a takk xare jëm ci moom ak jullit yi dëgg la am déet kooku bañ koo tontu ñu ne yonent bi santaane ñu rey ko bañ ko reyee ñee yëkkoon ak ne ah kon nañ daal di attaqué version yi histoire loolu du ci ñàkk. waaye li ñuy jàpp rek mooy ci ñaareelu fan ci Chaban ci Chaban ci atu juróom atub juróom ci la yonent saa salaam xare xare boobu noonu ànd ak juróom-ñaari téeméeri gawar yoo xamante ne ñoom ñëpp dañ doon xeex ak ñoom. léegi nag am na ñoo xamante ne ci ñi nga trib yi nga xamante ne ak giir yi nga xam ñoon ñoo dëkkoon ak waa banu mustalix ñoom dañ leen daal di révolté di leen xamal ne ñëw leen ngeen jàppale ñu ci xeex bi waaye ñu ci bëri ba ñu gisee armée yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañoo daal di wanewaat ginnaaw dañ daal di delluwaat ginnaaw bàyyi nangootuñu bokk ci xeex bi soo xoolee xare la nag boo xamante ne mu ngi tàmbalee comme ni ma leen ko waxee woon ci xare Uhud ak xeexu fettante flèche ba ñu sàndantee flèche daanaka sax ci xare boobu mën nañu wax ne ci yëfër yi fukk dee nañ ci kon li dee Uhud moo ëpp waaye bii diis rek ñoo ci dee waaye mën nañu wax ne ji jullit ñi kenn deewu ci waaye xare bi dafa ànd ak màng màng bi mu am mooy xéwal bi mu am mooy daanaka ñoom dañoo dañ bañ ba ñu gañee noonab yàlla yi dañoo ñibbise ak lu tollook ñaari junne giléem am nañu siira ñuy wax junne giléem wala daal lu ko teg waaye daal ñu jàpp ne giléem yi daal moom bëri woon na lool xar yi nag li ñu indi moom mat na juróomi junniy xar mooy cinq mille xar kooku moom ulama siire yi ñëpp d'accord nañ ne xare boobu dajale nañ lu ëpp juróom juróomi junniy xar yoo xamante ne jullit yi jëlee nañ ko ay muy màng boo xamante ne toujours rek nag màng su amee mooy butin de guerre yonent bi da koy séddale saxaaba yi léegi nag ba loolu amee jullit ñi kenn deewu ci lu mooy kenn rek moo ci dee xisaam bu bun subaaba al kalbi kooku sax soo xoolee dañ ko rey ci biir xeex bi ndax dañ ko jaawale ak noonu ci noon yi mbokk jullit yi jullit yi ci boppam ñoo ko rey comme xeex moom day bëri jaxasoo rek ba ko jullit morooma jullitam yi di ko rey dañoo foogoon ne sax dañ ko jaawale ak ñee waaw ndax xeex moom su méttee rek dangay dem ba kenn du xamati kenn léppay jaxasoo ci kon dañ koo tuer ñu rey ko par erreur loolu moom mooy xare bi taarix bi léegi nag yonent bi salaa salaam yónnee Madina ku ñuy wax Naml Abu Naml mu daal di wax nit ñi ne gañe na xare bi ba pare mu daal di dellu alhamdulilah ci jàmm mon premier jour weeru koor ci juróomeelu at bi noonu la xare boobu demee woon moom kon nag xare banu mustaliq moom la ñuy woowee xare Muraysiya ndax Muraysiya lan la woon benn teen la boo xamante ne dafa nekk foofu teen boobu noonu tax moo tax ñuy wax Muraysiya léegi nag ci xare boobu noonu waa banu mustaliq jàpp nit ñi ay jar-jar jar-jar mooy jaam waa waa waa bani waa waa yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàpp waa banu mustalix ñu doon ay jar-jar ay jaam waaye nag ci jaam yooyu daf ci amoon ku ñuy wax al bar bar maa ngi jégalu baratu daf ci amoon ku ñuy wax baratu baratu moom moo doon doomi xaaris mooy euh, njiitu clan bi mooy Banu Mustalik ki ko jiite xaaris moom moo ko jiite moom laa leen doon wax sànq léegi nii xaaris moomu noonu euh, moom mooy xaaris bun abu diraar moomu doomam bu ñuy wax baratu dafa bokkoon ci ñi nga xamante ne ñoom lañ jàppoon jaam léegi nag kooku yonent bi sallallahu alayhi wasallam gis ko ndigal wàcc ci moom pour mu takk ko mu daal di ko takk tuddee ko Juwayriya Juwayriya noonu la mbir mi tëddee kon looloo indi Juwayriya saxaaba yi nag ba ñu gisee ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam mujj naa takk ndaw soosu goreel ko takk ko ñu gis ne ne ah gorowanteeg yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba pare jël ay gorom ak ngiiram di leen jàpp jàmm loolu rafetul ci la daal di saxaaba yi ku ci nekk rek ci ñoom bàyyi jàmm bi nga amoon nga daal di ko goreel kon finalement da ngay gis ne clan boobu wala bokk giir boobu wala tribu boobu ñëpp a mujjee doon ñëpp a mujjee doon ñu yàlla goreel ginnaaw ba yonent bi sallallahu alayhi wasallam takkee Juwayriya mooy baratu. te gis nga ba mu ko takkee nit ñi dañoo kontaan ak kontaan ba sax faf ña ca nekkutoon ñëpp tribu bi ñëpp bàbbeeku sax ñëw mujj tuub ba nga xamante ne xaaris ci boppam nga xamante ne mooy patron tribu bi moom it mujj na ñëw tuub nga gis kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam takk boobu takk na ko takk stratégie bu doy waar moo lay wan ne kon lépp lu mu def rek du bakken waaye ndamul islaam rek lañ ciy séentu kon ñu dugg ci dars bi bàyyi ne summa min baadihim xuzaatun aydan bil muraysi xad daaw lin nidaali summa min baadihim topp ginnaaw wala bokk ginnaaw seen xare yi nga xamante ne amoon nañ kook yonent bi ñoom yéefar yi wala bokk ginnaaw xare yi nga xamante ne amoon nañ kook moom xusa atu aydan banu xusa atu ñoom it ah ca bërëb bu ñuy wax mu rey si xadda aw li ni daali ñoom it woote nañ yonent bi saa sam li ni daali ngir fettante gis nga waxul ne bàyyi waxul ne yonent bi ak saxaabam woote nañ pour ñu fettanteeg waa xusa a banu xusa a waaye dafa ne ñoom ñoo woote kon yonent bi mosul woote xeex li anna nabi dahra ma gaza bala sadda udwaan wa radda dalala bala sadda udwaanan wa radda dalala loolu la yéen bàyyi wax ci seeru xal bi yonent bi mosul xeex waaye dafa daal di rek repousser ignorance yaa ngi dégg kon mu ne ci lañ daal di xool ngi fettante ni daal mu ngi jógee ci munaadala munaadala mooy fettante mooy xeex lañ ci namm ndax xeex yi day am fetteeg lu ne fastafal mustafa juwayriyatan fi sabi fal qawmu utiqu fil xaali fastafa tànn na al mustafa ki ñu tànn juwayriyatan soxna suñuy wax juwayriya fi sabi ci jarjar yi wala mook ci jaam yi fal qawmu ca saas ya nag giru juray juwayriye yëpp ak ay mbokkam yëpp uxtiqu gores na leen gores lees nañu leen gores lees nañu leen fil xaali ci ci saasa bi maanaa saas yi nga xamante ne yonent bi takk na juwayriye rek saxaaba yi gis nañ ne kon kii ak ay mbokkam yëpp comme goro yonent bi la sallallahu alayhi wasallam waruñu leen jàpp jaam ñu goreer leen ci saasi baadamaanaa lu loolu kañ la am mu ne baadamaanaa ma baadamaanaa la ginnaaw bi nga xamante ne am na kullu qawmin sabaun képp kenn ci jullit ñi jullit ñi ku ci nekk ci ñoom fekk na yow bañ na séddalee ci màng xeex boobu nga amoon ay jaam ñi nga xamante ne ay mbokk lañ ci juwéer ya ak seen giir ginnaaw ba séddalee boobu amee ba pare bàyyi nee na ci lan daal di ñoom it bàyyi seen jaam yépp ñu dem wa raisu wa raisul aqwaami fil axlaa fil fil axlaali waaw xaal la ba tey fekk nag wa raisul aqwaami ki nga xamante ne mooy président wala bokk njiitu aqwaami peuple yooyu fil axlaali moom fekk na moom it waxtu boobu loolu di am mu ngi nekkoon ci gax yi mooy bi maanaa ci prisonniers yi ci ñu ñu jàpp jaam kon loolu moom mooy dars tey bi xaswatul mouraysia wa ma zalika àlalay bi aziz asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu seen mbokk Moustapha Guèye